waaye képp koo xam ne am nga 114 basmala nga def ko ci sa kalpe mbaa nga takk ko nga aw ko takk ko mbaa foo ko def foo xam ne rek doo taqalikoo ak moom yàlla subhanahu wa taala dina la sàmm waaye it mboolem looy ragal doo ko gis te it mboolem koo xam ne dafa am doolay zahir bu la bëggoon a faagaagal yàlla subhanahu wa taala dina intervenir waaye it moom yàlla subhanahu wa taala dina la taxawu waaye it dana yombalal ak am-am te it sa wërsëg dana ko yokk bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.